donc dafa mel ni que kilifa dañu bëgg a yëkkati kàddu dafa mel ni que kilifa yi dañu bëgg yëkkati kàddu ñu avancé nànk-nànk rek jox leen kàddu gi mel ni que kilifa yi dañu bëgg yëkkati ay kàddu ñu ñu ñu déglu leen rek ci li nga xamante ne mooy yenn ci ay réaction yoo xamante ni xëy nga du yàgg dafa mel ni que Abass Fall mooy yëkkati noonu kàddu bu mu ne après jël mesure yu muy jël loolu rek laa indi ñaan yéen ñi xam ne yéen ngeen a nekk fii loolu rek laa indi ñaan waaw dal xam nañ leen ci mais dal ak tey ku fi jéem a nag provoqué nag moom bon loolu sa responsabilité non xam naa loolu ah fii xam nañ ko xam nañ ko xam nañ ko xam nañ ko loolu moom na seen xel daal léegi mais leen rek PM mu ñëw mu ngi ñëw dans vingt minutes il sera là bu ñëwee ngeen déglu ko day wàcc dox déglu leen comme ni ma ko daan defee ba pare lam ci war a def après incha allah dana ko def li may waxoon mooy kenn du saboté suñu liggéey ñu koy def xam nañ tax ñu di ko def nekk nañ fi fukki at ak ñaar dëgër piru ñu bàyyi ba nag léegi ñu def ñetti weer ñu commencé xam nañ bu baax nag liñ ci wund mais yéen ñëpp xam ngeen ne ñun duñu ay cuune lu waay xalaat acte bu waay posé xam nañ fa mu jëm te boobaa ñu nag lañ ci war a apporter daañu ko ci apporter ci la ñuy wëy incha allah kenn du salteel suñu liggéey duñ ko nangu yoon la wax mooy dox ci réew yoon mooy mais pas n'importe quoi non dëgg la la mais garaawul garaawul garaawul garaawul garaawul lees waxul donc ñu ngi noonu a ah, ba léegi ñu ngi ànd euh, li nga xamante ni moom mooy kilifa yi ak ñenn ci ñi nga xamante ni waaw dafa mel ni dafa mel ni que. c'est trop Sénégalais bu nekk nag am nga droit déplacé partout au Sénégal et dans le monde pour dem uti loo loo def donc bu ñu fekkee ne ñun dañoo ñëw fii tey di ñafe c'est parce que fa ñu jugee ñàkk jom jëlee wu ñu fa de ñàkk jom aussi indi wu ñu fii dañ fi ñëw pour liggéey pour fexe nu ñu tëddee loolu nag. pour faj pare saafara li nga xamante ne mooy njaayu mbedd dafa laaj une très grande réflexion nekkul mbir moo xamante ni euh, que ce soit euh, l'autorité euh, communal wala wala le gouvernement dañuy jug un bon jour rek daan ni njaayu mbedd dootul am Sénégal dafa laaj une très grande réflexion boo xamante ni dañ naan d'ici deux mille trente nekk nañ fi fukki at ak ñaar dëgër ñu bàyyi ba nag léegi ñu def ñetti weer ñu commencé xam nañ bu baax nag liñ ci wund mais yéen ñëpp xam nga ne ñun duñu ay cuune lu waay xalaat acte bu waay posé rek xam nañ fa mu jëm te boobaa ñu nag lañ ci war a apporter daañu ko ci apporter ci la ñuy wëy incha allah kenn du salteel suñu liggéey duñ ko nangu yoon la wax mooy dox ci réew mi yoon mooy mais pas n'importe quoi no dëgg la dëgg la mais garaawul garaawul garaawul garaawul garaawul lees waxul waaw non ñu ngi noonu yaakaar naa ni. Euh, euh, donc euh, ñu ñu jël. waaw non non man ñu ngi noonu ah ba léegi ñu ngi ànd ak euh, ñi nga xamante ne ñu xaar jërëjëf ñu lay ziar. waaw jaajëf Touba jaa waxal leen moom mooy waaw nga xam noo ko la nga doon wax. waaw bon li ñu doon wax mooy euh, ñun ñëpp tey ay sénégalais lañu ay sénégalais lañu ak ñeneen sax ñu dul sénégalais donc loolu li ko maye mooy doomu aadama bu nekk. da nga am droit déplacer wu partout dans le monde pour pour tour sa ñaq donc ñun bu fekkente ñun dans notre propre pays bi nga xamante ne tey ñun ñoo ko encombré d'accord mais le il faut se il faut demander le pourquoi lan moo tax maanam dëkk bi encombrement yi bëri lan moo tax dëkk bi xat li ko waral mooy dëkk bi dafa amul liggéey c'est parce que autorité euh, yi nga xamante ni moom lañu mës a am les autorités gouvernementales dañu échoué ci côté boobu parce que nit boo juddoo ci dëkk yaroo fa donc dañu war a garantir sa sécurité alimentaire ak sa paix sociale da nga war a dund dund goo xamante ne dund gu mucc ayib la donc bu fekkee ne dund googu nag mënoo ko am ci sa réew léegi ban réew nga koy ame fan nga koy amee affaire bi ñëwuñ ñun pour saltel ñun ñëpp dañu bëgg dëkk bu set dëkk bu rafet dañu bëgg ñun tey tey Colobane bu ñu sañoon mu mel ni Times Square ca New York mais est-ce que possible est-ce que ñun am nañ ay capacité bu rafet a ñi boo duggee seen kër yi lekkuñu naanuñu dañu xiif est-ce que moo tax ma ni loolu dafa laaj ay réflexion yoo xamante ni euh, les autorités gouvernementales dañu war a toog xalaat ci jël benn délai bu gudd daan ni d'ici deux mille trente cinq bëgg nañ njaayu mbedd wàññeeku à soixante quinze pour cent bu ko defee nag nga teg les jalons yi nga xamante ni moo war a nit ñi ci mbedd mi yóbbu leen feneen parce que nit ñi il faut ñu dund quoi qu'il en soit mënoo wax tey par exemple ay beauté wala propriété alors que yow nit ki lekkul naanul wala bu feebaree du faju wala bu bëggee liggéey du liggéey loolu ban sens am mbedd yu rafet alors que nit ñi lekkuñu loolu ban amul sens donc moo tax ñu ngi lancer un appel solennel gouvernement bu bees bi nga xamante ni nit ñi dañu sacrifié wu def ci lu ñu mën maanaam ñàkk a nelaw guddi stress bi maanaam bi nga xamante ni dañ ko dundoon avant euh, gouvernement bi di ñëw dañu nit ñi dañ doon stressé maanaam bu ñu të wallaahi lazim man boog personnellement dama doon jug 3 heures du matin ñaanal Ousmane Sonko yàlla defal ko jàmm billaahi wallaahi julli ñaari rakkaa ñaan loolu am na ñeneen ñu ko def loolu nag maanaam dafay nuru maanaam waxuma pour partisanerie de mais c'est parce que ñu dañoo jàpp ne ñoom comprendre nañ les vrais problèmes du Sénégal problème yooyu mooy ndaw ñi amuñu lu ñu def nit ñi bu ñu feesee fii lii exemple la ci de moo am Kaolack moo am Ziguinchor moo am Thiès moo am région boo dem ci Sénégal li fa am mooy ndaw ñi ñoo ngi feesal mbedd yi léegi même ñi ci bureau yi sax dañuy jaay il faut se poser le pourquoi lan moo tax loolu am. mais est mën naa mën a dakk fii ci de. mën naa. mën naa mën naa jeex. waa jeex laa de dama ni Times Square. boo demee ni nga tab ca New York xamante ni lieu la bu mag boo ba ngay gis ñu lal fii kii lal fii kii lal fii ki lal fe ci réew moo xamante ni yow rawee na la plus de deux cents ans ci avancement ba muy avancé booba yaa ngi ci suuf léegi naka nga mën a jugee rek dem New York xool New York ah New York dafa rafet wala Dubaï kat vraiment dëkk bi kat dëkk bu rafet la nga jug rek ñëw Sénégal fàtte maanaam les réalités du Sénégal nga bëgg koo comparer ak New York loolu mënul nekk. njaayu mbedd bu ñu ko bëggee dindi dafa laaj maanaam une large concertation toog xalaat ci lu yàgg a yàgg avant ñu ko fi jëlee mais munoo jóg rek daan ni bon waa Colobane kat nee nañ dëkk bi dafa xat waa Kër Massar waa Mboro waa Nangam mais il faut ñu poser ay questions. mairie bi xanaa mairie ba mu génne xanaa xanaa wax na yéen ba joxe li nga xam ne moom mooy avertissement. voilà sëñ bi man jaayuma sax Colobane man maa ngi jaayee Sandaga mais li xew Colobane moo xew Sandaga moo xew Kër Massar gis naa mu ngi xew Rufisque gis naa mu ngi xew yeneen koñ ak yeneen koñ léegi bu fekkee ne loolu yëpp dañu jug tey pour jël ko fi avec combien de millions de je de le Sénégal di amaat encore fekk ci ñeneen ñi fi ki donc moo tax état du Sénégal nañ toogaat xalaat naka lañ mën a def ba tabax ay marché teg les jalons yi nga xamante ne ça nous mène vers le développement après bu ñu jugee ñu jóg a jublu ci ay mbedd dafa set ak wala yooyu. laa nga jeexal Sonko léegi mu ñëw incha allah bu ñëwee lan ngay lan ngay xaar ci moom. waaw monsieur le ministre bu ñëwee man li may xaar ci moom mooy prendre ses responsabilité parce que prendre les responsabilités mooy lan mooy moom xam na ni Sénégal gi dëkk bu ndóol la nous façon partie des vingt quatre pays le plus pauvres au monde alors ñun bu ñu teg suñu bët Paris wala ñu koy teg Washington wala ñu koy teg Hong wala feneen ñun ñu ngi ci suufa suuf. donc il faut ñu jóg génn ci suuf ba pare doog a xool nag ay waxu set ay waxu nangam ak nangam ak nangam. merci beaucoup Diop voilà jërëjëf man maa ngi tudd Daouda Ndiaye. waaw sa ma sama tonton kooku mooy Daouda Ndiaye yaakaar naa ne wax ji li mu wax leer na Mor lan ngay Mor jege sama jege sama tuuti waaye nga analyser ma un peu rek kàddu yi nga xamante ne sama tonton Daouda Ndiaye wax na ko. Euh, baal ma ñu jur réaction bi rek balaa balaa ñuy. waaw kon ma jéem a dugg ma jéem a dugg. yi borom portable yi mel ma ñëw borom wo Lo téye preuve ko ay scandale dégg nañ ko si marché Gueule Tapée marché Gueule Tapée léegi mu def plus de